tey dañu ñëw si mbër boof mbër boof moom defe naa ni mi ngi nii moom yomb na xàmmee ñun ko nii moom mbër boof waaw mbër boof a ngi nii muy garab gu doy waar day law nag moom yoo gisee nii taxaar bi moo nekk ni rek moom dafa gaaw a loxasu day law ñu koy wax liyaan mu nekk loo xamante ne léeg mu yéeg si dara aussi boo defee sa mur sax mën na ko leru wala sàkket mu yéeg ko day law rek mën na lew dem lu baax a baax la moom Borbof gërëb gi daal lu mu nëbb sa ay secret moom dañ leen si ñam rek mënu leen jox lépp waaw dañ leen di ñamal rek waaye li mu ëmb bari na moom mbër boofu wàll wi ñu leen di njëkk tegtal nag muy wàllu fièvre muy yaram bu tàng wala boobuy metti tibal takk bu toll nii rek nga baxal ko ba mu baax nga sëgg si suuru si boppare nga segg di ko di si naan lu baax la wala nga wut loo xam ne da nga koy suuroo wut loo xam ne da nga koy baax di ko naan nga séparé ko maanaam li nga suuroo suba gi mën nga suuru ngoon gi bu ko defee nag nga wut à côté ngëbu loxo si litre ndox baaxal ko cinq mille segg di ko naan par kooku daal moom lu baax si wàllu fièvre la tàngooru yaram boo amee biir buy daw baax na si mais da nga koy xobu ngeer da ngay tibb si xobu mbër bopp bi ngëpp tibb si xobu ngeer bi ngëpp leen si litre ndox segg ko di ko naan par genn wàll kaas mais fu biir bi arrêté da ngay arrêté sinon daf lay seere après wàllu kàttan néew doole ñi nga xam ne bu ñuy ànd ak soxna daal dañuy gaaw a jot seen bopp nañ koy boo jël garab bi lépp rek maanaam xob bi reen bi car bi lépp la ñuy boole tibb loxo ba mu fees ñu baxal si litre ndox di ko naan par genn wàllu kaas bu ñu dëkkee bu ñu añee bu ñu reeree bu dee wàllu saan xob bee si gën gaaw xobu mbër boobu tibbal sa loxo ba mu fees nga baxal ko si litre ndox ba xëy juróom bi nga segg ko di ko naan par kaasu attaaya bu dee mag xale genn wàllu kaas attaaya ndax dafa xaw weex boo ndëkkee boo añee boole bu dee wàllu jabet lu baax si jabet la mbër boobu moom garab yi ko gën si jabet bariwul tibbal sa loxo ba mu fees tibb si ngéey jaan bi sa loxo ba mu fees jaan ak mbër boobu bu ne ngëpp nga baxal sa litre ndox bu baxee juróom min nga segg ko di ko naan par genn wàllu kaas boo ndëkkee boo añee boo reeree ndoxum siti moo si mën tibbal sa loxo ba mu nga baxal sa litre ndox di ko naan par kaas attaaya boo ndëkkee boo añee boo bu dee dafa génn si yaram bi dafi góom ak lu mën a doon def ko lii ngay jël rek togg ba mu ñor nga def ko njàmpe di ko sangoo boole ko ndox mi di ko sangoo si kàttanu yàlla ndox moom ngay sango di ko bombe lii di ko def ko njàmpe baax na si wàllu li ñuy wax varicelle nga xam ne ay picc yu sew lay def sa yaram bu toj euh, fu mu laal mu amaat beneen dañ koy jaawale sax a wagga léeg-léeg te bokkuñu même wagga boobu sax def see baax boo ko leen di jël si kàttanu yàlla yàlla mën leen dimbali wàllu ngasit ñi am ngas xale yi dañu ko daan sange dañ ko jox ñu naan dafay gaaw wéral ngas boobu muy rougeole ak wàllu wagga boobu ma wax léegi yi ñaar la neen dafa am hypertension hypersudation hypersudation maanaam day ñaq lu bëri day bul ñaari garab lañ lay tegtal xasum mbépp ak xasum béer béer ak mbépp bu ne ñetti xas nga baxal ko ba mu ñor si litre ndox di ko naan par genn wàllu kaas boo ndekkee boo añee boole yàpp na nag jigéen ñi xam te dañ toll si ménopause nañ am ay bouffées de chaleur léeg-léeg man dañ leen dugal si fuur loolu dina koy def ba nag ñoo xam bu ñu toogatee aaj boobu dafa leen di dal mais yàlla moo leen bindee rek noonu dañuy ñax fu toll lu ñu laal sax mu tooy. question bu mujj bi kii daal nee biir bee bari ngelaw jinjar limon lem jëlal jinjar nga def ko ci saa yoo lekkee nga xel yi genn wàll kaas paccal benn doomu limon def ko du lem naan boo amul jabet soo amee jabet nag nga jël limon bi ak euh, jinjar bi kër bañ si boole lem ñu leen tàggu fii leen jox naa des beneen jotaay jërëjëf waaw